asalaamaaleykum bokk internet bu Guédiawaye info tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy gàddaay ñëw seet si grand Massata Alé Ndiaye doon grand frère ci Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye ci lu soxal benn waxtaan boo am ne war nañ ko am ak moom donc grand ñu lay ziar di la bàyyi nga nuyoo. asalaamaaleykum waa dak ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci àjjuma ji di leen jox seen wàccuwaay waaw grand ci kaw loolu ñu gis ni relation famille Aly Ndiaye ak Balla Gaye 2 euh, mun nañ ni coow yu bëri na ci. waaw dañu gis question yu bëri nit ñi dañ ko ci posé wu. Mhm. Ah, yaakaar naa yow euh, tu es le pour mun ñu wax ban relation ngeen am réellement ak Balla Gaye numéro 2. Mhm. waaw loolu dinaa ci sawara tontu leeral ci téléspectateurs yi seetaan euh, Guédiawaye info ak waa axlu làmb ak mbokk internet yi. relation Balla Gaye ak waa kër Alla lu yàgg la ndax je me rappelle en 1986 boobu mën naa wax ni ay ñoom Aziz ñoom Baye ñoo ñëpp ay tout tànk lañu suñu amee yenn dëgëra tamit du noonu je me rappelle jamono jooju ñu ngi toog suñu buntu kër man sum papa ak suma ñoom yaay ak yaay ñoom Aziz ñu toog nii di waxtaan ñu jékki-jékki ba mu yàgg tubalees ñëw gaare bi mu gaaree mi ngi yor benn poso mbaar jamono yooyu la sam papa njëkk jënd 505 jamono yooyu lay door a génn bu bees muy en 1986 mu jënd ci benn boo xam ne 505 bu weex la su ma juumul série matricule bi mi ngi nekkoon 81 06 S1 M xam yàgg na ci la papa yi Balla ñëw ci kër gi. bi mu ñëwee fekk ñu toog ci mbedd mi mu nuyoo jàmm santeeg ñun daal ni sum papa dama la doon yëgal ni la suma soxna am na doom muy doom bu góor doom boobu mooy Balla Gaye kon nga xam ni xale yi seeni ñaari waajur doon nañ demlante di yëglante te boobu xale yi màgg guñu kon loolu jiitu na leen jamono di dox jamono di dox Balla Gaye di dox xale yi di màgg ma Balla Gaye ki mu maase ndool mën naa wax ni par exemple mooy xalil xalil moomu moo doon ànd ak Balla Gaye ñooy bokk fu ñuy fanaan di bokk fu ñuy nekk di yendandoo di yëkkatandoo di màggandoo ba xalil moomu moo ko dugal ñoom ñaar ñu ànd dem bëre ji mbapat suñu demee bëre ji ñëw bala day ragal a dellu seen kër bu ñëwee cere ji nga xam ne waa dafa buggoon cere cere la daan reere cere ji suñ ko musaan jël buñ tibbalee sam ba pare bu mu desee xalil moom mooy jël ñoom ànd fekk Balla Gaye ci suuf ñoom ñaan ñu bokk ñu reer ci buñ fekkee ñeex mi jeex ñu dem jënd meew def ci ñoom ñaar ñu àndi chemin ba Balla Gaye saaku ceeb bi mu njëkk a gañe ci xalil la ko amee bu ñëwee ñemewu ko yóbbu seen kër xalil moo ko jox courage waxtaan ak moom buñ yóbbu ko seen kër kon nga xam ni loolu yàgg na jamonoy dox mu dem di andek ak Baye Baye di ko yóbbu ci ay mbappat muy dem di bëre ci kon nga xamni lolu loolu yàgg na nit ñi nag xamuñu lool dañoo yaakaar ni Balla gay ak ñi dañoo tëb tëb nii rek and tay wala aduna dafa neex booleen mais lu yag la mais loolu nit ñi xamuñu ko te lamb nak mo demee noonu am léeg-léeg da ngay far fi far fi mais bu la yàlla tour so soo ak fenn rek ñu ni lan mo tax nga wara and ak ñom mais fekk lo gis rek dafa am lu nekk ci ginnaaw loolu mo waral and Balla ak xale yi. waaw mu doon relation boo xam te ne mun nañ ni moo ko lal. Mm-hmm. ah parce que ci seen i wajur la woon ba tey ngeen ñëw yéen nga xam te doom ngeen di ko di ko di mm-hmm. waaw ñu gis tamit euh, dëgg la. Mm-hmm. la bi ak Balla yàgg nañ. Baye yàgg na accompagner Balla ci ay bisam. Ah, am ak moom tàkkusaan bu ne. mais contre Gris Bordeaux dañu gis mobilisation famille boo xam te tey dafa jéggi dayo ba yow sax daaw ñu faral di gis ak ku mel ni Aziz mais di ñëw daal di waaw li waraloon taxawaay boobu nag dinaa ko leeral tamit nit ñi bu baax parce que man ku ma gis xam ni man duma dem ci yooyu mais waajur da di loo xam ne dafa foor ci nit te sàmm sa waxu waajur dafa baax fa am bis bi Balla Gaye nekkee ci jafe-jafe mu ñëw Tiwaawan fekk Aziz Ndiaye di sanc këram bi mu sancee këram ñu toog suma juumul ñu fa daje woon bari na ay ñoom mali Gakou ña nga fa woon ay ñoom Gaston Mbengue ña nga fa woon ñu ñëpp ñu toog bu ñu toogee di waxtaan ba yàgg sam bàpp daal ni Balla ci kàttanu yàlla ñaanal naa la ko ci mbaaxu yàlla bis boo amaatee komba doo daanu nit ñu jël wax ji yóbbu ko fu nekk léegi ñun boo xool li ñu mobiliser woon ñu dugg ci komba boobu mooy suñu waxu papa lañ doon sàmm ndax comme que neewoon na Balla bu la yàlla mayee ndam doo daanu ñu dañoo jëlale woon Balla mais suñu waxu papa lañu doon sàmm moo ñu waral ñu duggoon ci komba boobu à cent pour cent man lool moo ma waraloon ma dugg ci biir jàppale xale yi pour suñu wax kilifa googu bañ a euh, naax saay loolu moo ñu waraloon ñu dugg ci combat moo dugg ci combat boobu. kon ndigal la woon daal mën waaw mën naa woon ndigal la woon ak sàmmi kóllëre góor gi. Hmm. waxu góor gi moom moo taxoon ñu gën ci soogu ci loolu.